mbokki Sénégal seen mbokki réew Boubacar Camara Kama moo leen di nuyu fii ci diggi Parcelles Assainies mu nekk commune bi nga xam ne moo gën a rëy ci Sénégal mu bokk ci commune yi nga xam ne amul benn liggéey buñ fi def pour mu nekk ville bi mu war a nekk Sénégal nag fi mu tollu il faut que nit ñi def très attention ci élection yi ñu jëm parce que dañu war a tànn te boo gisee candidat ñetti groupe bu candidat la laaj leen ma ñetti groupe yooyu ñan la benn groupe bi ñoo xam ne ñii wax dëgg yàlla am na ñu volonté ay ñu baax lañu jàng nañu l'école am na si aussi ñu jàng daara waaye wax dëgg yàlla réew boo koy dénk da nga koy dénk koo xam ne kii am na expérience ñooñu ñooñu da ngeen leen di nuyu damp leen bàyyi leen ñu dem parce que réew Sénégal fi mu toll kenn du ko jox ku amul expérience ku amul expérience mooy koo xam ne xamoo fooy teg sa tànk boo ñëwee dangay nekk di laajte di nga laajte ñaari at ñetti at fekk nit ñi gën a dee kooku moom féete boor ñaareel bi mooy ñi nga xam ne dañu am riir loolu yorul réew xam-xam moo yore réew liñ fi wax dara taxawu fi pour le moment suñu waxee lii tey suba ñu wax lële loolu du yor réew réew Sénégal fi mu toll kenn du ko jox ay aventurier loolu man maa ko wax bu leen kenn tiital bu leen kenn xoxatal defar réew du caaxaan komba bu jotee la combat démocratique on l'a mené avec tout le def nañ ko ce combat là il est terminé maintenant dañu bëgg tabax suñu réew ñetteelu catégorie bi mooy ñi nga xam ne ñii dañoo mot dañoo yemb am xam-xam yàgg diriger état yàgg organiser fii ak bitim réew ñi nga xam ne mun nañu fexe ba Sénégal génn ci ndool bi Sénégal génn si ñàkk jàng bi Sénégal génn si ñàkk xëy Sénégal génn si ñàkk kaaraange Sénégal génn si ñàkk feebar ñooñu mooy homme d'état yi nga xam ne yi dañu liggéey ba pare xam seen loxo set nag nga xam ne mosuñu jël dërëmu kenn ñetteeli catégorie boobu dama ne bu leen kenn gëlëmal choix bu baax bi kii la kama bu leen kenn gëlëmal choix bu baax bi kii la wasalaam jërëjëf